courant bi yokkuwul mais lu nit ñi di consommer ci courant moo yokk ndaxte ñëpp gis nañ ne weer yi ñu nekk du Sénégal rek mais gis nañ ne ci àdduna bi tàngoor bi tàng na tàngaay boo xam ne mosuñu ko gis bu jamono sosoo ba léegi et que loolu nag ñun lu ñu gis fii nii au niveau di Sénégal dafa impacté si clients yi nan la ñuy utiliser courant ndaxte janvier ñu ngi doon laaj lu toll si juróom-ñaar téeméeri mégawatt au mois d' octobre lu ñu laaj toll na si junni ak juróom fukki mégawatt loolu boo ko xoolee mooy janvier ak léegi affaire bi yokk na de moitié loolu mu yokk nag du lu Senelec inventé mais dafa nekk loo xam ne lu lu ñu clients yi demande la lu client yi consommé la kon donc bu consommation bi yoko presque de moitié de 50% da fay dafay jaadu ñu gis ne facture warna yok lu tollu nonu légui nak lolu buñ ko bolé hausse bi nga xamné mo amone au mois de janvier parce que hausse bobu c'est la première fois muy muy appliqué wu si période de forte consommation kon donc bo jëlee 50% de hausse de la demande nu mu yokkoo nga boole si ak augmentation tarif yi loolu dafa jaadu mu feeñ si facture yi nga xam ne moom la client yi di fay léegi nag lu may wax lu ñu war a def mooy que ni Senelec du jóg ne dafay jékki-jékki modifier ay tarif Senelec amul prérogative boobu ndaxte Senelec balaa muy mun a appliquer tarif il faut que tarif boobu régulateur bi valider ko et tarif yi ñu amoon ba léegi moo fi nekk képp ku nga xam ne daf si am xel ñaar na jël facture am bu mu amoon ak facture bu mu am tey mu xool bu gisee dina xam ne tarif yi benn lañ lu ma leen di ñaan rek di ko ñaan client yi mooy ku si jot sa facture balaa ngay wax ne élevé na xoolal ñaata énergie nga consommé woon ak ñaata énergie nga consommé loolu boo ko defee nga jël tarif yi nga xool di nga xam ne mbir mi amul dara mais consommation yi ñoo yokk jamono bu ñu tollee nii nag mu demee nii lu ñu wara wax te ñun lu ñuy gën ñaax suñu client yi moy ñu def ay gestes yo xam mo ñuy permettre ñuy économiser ndax ndaxte Senelec dafa ñëw installer compteur bi yow ya xam sa appareil yow ya xam nokoy utiliser mais compteur bi deful lu compter te bu compter nak malheureusement comme ñun dañu produire lolu joxé ko il faut client bi fay ko